comme ni ma leen ko waxee sànq tey mercredi on parle de jeunesse éducation et société donc euh, dañuy dugg rek ci benn domaine bi nga xamante ni moom mooy euh, le social ñuy dalal nag tey benn invité tudd Assane Touré nekk rek euh, koo xamante ni day yëngu bu baax ci wàll boobu donc bi pa dama lay bàyyi nga dalal suñu invité tey ñu daal di tàmbale waxtaan waaw comme ni nga ko waxee tey ñu ngi dalal Assane Touré nekk ci team Ninche Euh, nekk euh, groupe boo xamante ne day yëngu ci wàllum social maanaam lépp loo xamante ne day laal wàllum jàppale nit yi euh, defaraat ay école ak lépp loo xamante ne si loolu lay doon nag ñu koy dalal Assane Touré suñu plateau tey. salaamaaleykum bonjour na ngeen def ñu ngi leen remercier bu baax ci occasion bi ñu bi ngeen ñu may ñëw exprimer wu. Mm. di leen di leen jaajëfal ci loolu. on voit dañuy faral di gis seeni réalisation si xarala yu bees yi. rawatina Twitter ngeen ràññeeku ci bu baax a baax ngeen depuis kañ ngeen tàmbali yëngu ci ci wàllum social fii nii ci Sénégal. en fait euh, on a commencé juste après la Covid parce que xale yi toog nañu un certain temps jànge wu ñu demuñ ci école yi donc on avait remarqué que peut-être école yi ils étaient un peu sales et tout on s'est décidé que est-ce que duñ dem nettoyer ko vite fait pour xale yi permettre leen ñu dellu si waat dans de bonnes conditions. en nettoyant, on a vu que le problème était beaucoup plus profond et que c'était c'était pas un, un problème de de saleté de nettoyage mais un problème plus global structure bi ci boppam il y avait des soucis et c'est de là qu'on s'est lancé en 2021 en 2021 donc euh, le premier chantier bu ñu mën a wax bu am ampleur c'était au lycée de Yoff c'était au lycée de Yoff en septembre 2021 mais boobu c' était sur sollicitation du de l' inspecteur régional. Mhm. l' inspecteur d' académie. parce que il y avait des examens du BFM qui devaient se passer une semaine après et sur les toits il y avait plus de il y avait plus de toits donc les élèves étaient tête en l'air <laughs> donc là c'était c'était une situation catastrophique on, on a fait un truc euh, en une semaine ñu essayé rénover classe yëpp defaat ci toit defaat ci électricité et tout Et heureusement qu'on l'a fait parce que premier jour du BFM, il eu la pluie. donc euh, sans sans ça le centre serait. gars si taw bi la ñuy composé. mais léegi kon la mu bëggoon xam mooy yéen seen euh, seen euh, seen action yi nga xamante ne yéen a koy faral di amal nan lay demee ba xam yéen ay xool seen entourage ba xam am na lieu boo xamante ne jar na ñu defar ko wala bokk sollicitation ngeen di am comme ni nga ko waxee sànq ak inspection. mu nekk Yoff c'est ça donc euh, pour le premier chantier c'était c'était à Grand Dakar fii mouvement bi soso on peut dire donc euh, c'était les écoles environnantes de de Visu mais depuis c'est des sollicitations sur sollicitations là il y a une liste d'une vingtaine de sollicitations yu ñuy essayer de xool par priorité et aussi par répartition géographique parce qu'on veut pas juste se limiter à Dakar on veut pas juste se limiter dans la capitale dañuy dañuy dañuy génn un peu partout dans le pays donc euh, on a une liste de a une grande liste quand même mhm. de sollicitations donc maintenant c'est plus par sollicitation des des des professeurs de l'administration ou même de l'inspection parfois léegi est-ce que da ngeen di euh, maanaam da am seen biir des personnes yoo xamante ni elles sont habilitées à faire certains travaux wala nan ngeen di constituer wu pour mën a réaliser wala da ngeen di recruter ay nit nan lay demee en fait. voilà en fait euh, heureusement que je fais bien les choses dans le groupe de volontaires il y a un chef caloreur boo xam ne moom loolu c'est sa c'est sa profession qui a rejoint l'équipe parce qu'il voyait qu'on en avait besoin. C'est comme vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, on dit qu'on a besoin de faire le carrelage. Donc, euh, il euh, y, a, y, a, les gens qui vont, qui vont, qui vont, qui vont venir rejoindre la team. Y a, on a un chef peintre et on a un chef maçon, ainsi de suite. Et chaque chef, il est en train, il a son équipe de Union Peinture, chef peintre B. Il prend, il prend une équipe il va avec eux faire la peinture le chef maçon dem atelier peintre dem atelier maçonnerie ainsi de suite c'est comme ça que ça a été réparti au fil du temps dañuy organisation bi de gën di affiné wu mais alhamdulilah on a des a des spécialistes pour il y a certains pour certaines choses nag on n'en a pas malheureusement pas encore yooyu noonu dañuy dañuy fay benn nit bu jógee à l'extérieur mu ñëw mu def ko en général sax fay bi c'est juste le matériel parce que quand il voit le, le, le motif. Mhm. la main d'œuvre généralement ils demande pas ça ils demandent juste de, le matériel pour qu'on léegi yéen li ngeen di demande de l'argent léegi man li ma bëggoon laaj mooy koppa yi fan énormément d'argent mais au début c'était c'était sur euh, une base de crowdfunding participation euh, sociale Donc, on lançait des cagnottes sur Twitter, sur Nagam, sur les, à travers le mobile banking. Mmh. Les gens participaient, on demandait 100 francs par personne. On demande à ah, chacun. Quand on est 1000, ça commence à faire quelque chose. Quand on est 10 000, quand on est 15 000, ça fait, ça fait quelque chose. Donc, c'est là où on a commencé, c'est là, c'est avec ce système, la nous def, euh, disons, plus de 70% de nos écoles. Maintenant, bi ñu demee ba avancé les entreprises ont vu l'initiative et à travers seeni projet RSE ils sont venus ils sont venus nous accompagner on a eu on a eu je vais pas les citer mais on a deux trois partenaires présentement yoo xam ne on a signé des accords avec eux ñooy financer yenn yenn travaux yi dañ leen di présenter les budgets et tout après ñoom ñu financer ko ñun ñu exécuter ko mais on on laisse pas de côté suñu modèle initial mooy la participation associative fexe ba ku nekk jëf ci bu fekkee pré mënoo sa présence par ta présence ñëw mën nga de par ta poche soutenir l'action et puis jàpp ci fexe ba nos petits frères et nos petites sœurs nekk dans de très bonnes conditions. état bi mu ngi leen di soutenir. pas encore. mais dem ngeen ko. ah tu sais l'État <laughs> tey jii gis nañ ne seen activités yi ni nga koy diversifier parce que si école ngeen commencé ci wàllum éducation tey jii gis nañ ngeen di defar ay teen mm-hmm. ak li ni mel lan moo euh, waral ngeen. changer euh, bon pas changer mais diversifier li nga xamante ne mooy seen activités yi ngeen doon def jëlee ko ci école dem ci ten yi tey yéen ngi ci jumaa ak li ni mel. Mm-hmm. en fait euh, dans ci processus bi plus ngay gën plus ngay gën a gas plus ngay gën a gis qu'il y a besoin par exemple dañuy dem ci benn école Sinthiou Daga par exemple à quelque kilomètres de la Gambie y a ni eau y a ni rien boo c'est bien boo nga ñëw defaraat école bi et tout mais tu vois que y a aussi un souci d'eau donc ci école bi nga ci école bi lañ commencé teen yooyu yenn école yu bëri fexe ba créer fa forage fexe ba école bi autonome en eau fexe tout le temps parce que defar ay rénover ay toilettes aussi te amul ndox amul amul trop d'impact donc fexe ba ñu autonome en ndox et puis loolu ndax village yu bëri sillonné nañ leen donc boo gisee loolu dem ci village bi gis ni que école bi ak village bi amuñu ndox boo defaree école bi ba pare di nga xalaat dellu siwaat ne ah village bi nañ leen may benn teen comme ça parce que c'est c'est très difficile de se lever le matin de parcourir des dizaines de kilomètres pour chercher de l'eau parce que euh, pour benn problème boo xam ne huit cent mille un million mun na ko résoudre bu ñu ñëwee on réfléchit sur ça par step la rek da ngay ñëw gis ni que voilà il faut qu'on relance il faut si loolu sax laa bëggoon euh, def benn relance mooy ni loolu noonu le fekk ngeen commencé ci école te jii ngeen di def diverses activités yu leen di laaj énormément de fonds loolu est-ce que du wane ni actuellement dëkk bi fépp fenn doxul exactement sa ça montre qu'il y un réel problème il y a un réel problème est que ce que les gens ont tendance à oublier wala pas les gens mais nous qui sommes de Dakar mooy dañuy foog ne que Sénégal Dakar rek la on voit que on on se dit que tijji sa robinet yeewu tijji sa robinet am ndox maanaam norme la alors que am na yenn lieux yoo xam ne luxe la fa donc on voit que on sort un peu de Dakar même à Dakar y a les mais tu sors un peu de Dakar tu vois que c'est vraiment vraiment très difficile c'est vraiment très difficile pour les gens pour seen besoin primaire je vais dire pour l'éducation pour la santé pour avoir accès à l'eau potable ainsi de suite pour les besoins primaires il y a il y a, il y a un gap énorme à résorber quand même. léegi nan ngeen di nan ngeen di def en tant que volontaire vraiment pour. Euh... mën a vivre seen vie normalement seen i activité personnelles seen i déplacements dans les zones les les travaux et tout. nan ngeen di gérer loolu. xam nga euh, maanaam quand on est un engagé communautaire quand on est un volontaire ça demande énormément de sacrifices en général pour euh, quand lors des voyages on le fait les week-ends on part vendredi on essaie de revenir dimanche tard dans la nuit ou lundi fajar ñibbi sa kër si meeku daw dem liggéey wala jàngi affaire yooyu noonu parce boo ko deful it di nga def leneen nous on aimerait bien le week-end partir à Saly voilà mais tu te dis que am na leneen loo xam ne moo lay gën a satisfaire parce que euh, volonté la am na loo xam ne moo la ëppal plaisir que toog sa kër profiter de la famille et tout day demander ay sacrifices énormes day demander mais bon tu le fais avec plaisir parce que loo xam ne yow yaa ko décidé la yow yaa ko bëgg a def donc c'est toujours un plaisir de partir, de partir dans des zones et puis de découvrir, et de découvrir d'autres, d'autres cultures, d'autres habitations, de se former psychologiquement et de savoir que, waaw boo ñibbisee dangay sant yàlla nga ne ah je vais pas me plaindre je me plains pas <laughs> ma yeewu naa maa ngi sant yàlla je suis en bonne santé. mais ci côté culture bu euh, plaisir boobu ngeen ci am ak découverte boobu noonu est ce que amul yeneen avantage aussi parce que gis nañu léegi ku jug lancé wu ci social est ce que amul aussi euh, leneen loo xamante ne. la communauté arrangé nañ ñi nga xamante ne ñu ngi siy yëngu fu mu ne nii. benn eh, ñaari eh, avantage la mën a am quand on est un, un engagé mooy tu apprends te par exemple y a y a des moi je vais prendre l'exemple des filles du groupe yoo xam ne ñoom ñoo tab ñoom ñoo peinturaat seen kër seen kër dafay am chantier peinture ñoom ils ont l'expérience de faire la peinture donc juste le chef peintre il vient il leur jette sur le mélange et il s'en va ñoom personnellement ñoo jël peinturaat seen kër donc am nañu apport ci seen famille donc jàng nañu lu bees am nañ benn connaissance et tout mais au-delà de ça mënul am beneen beneen à part loolu ak satisfaction personnelle bi ngay am mënul am beneen parce que tu perds tu vas pas perdre mais il ton temps qui est mm-hmm. tu n'as plus de temps de de de de, de t'amuser amoo amatoo énergie tu reviens crevé parce que tu es tu es dans un village à 400 kilomètres y a pas d'eau y a pas d'électricité tu as les poches vides voilà quoi qu'on puisse dire tu as les poches vides donc satisfaction personnelle boobu moo ci am. mënul am intérêt pécuniaire. boo ko ci amee rek. mais retour bi finalité bi lan la l'amour pour la patrie wala. ngeen euh, fi cherche. la finalité c'est Mais c'est ça, il y a, y a, y a, y a le patriotisme et puis, quoi qu'on puisse dire, le pays nous a tout donné. On est né ici, la majeure partie d'entre nous sont nés dans un hôpital public, on fait l'école publique, sont allés à l'université publique, ont reçu des bourses. Donc, à un moment, tu, tu, as, tu dois être reconnaissant par rapport à ce pays-là. Avec l'imle dama ko koy dinaa ko ci delloo un centième wala un millième de depuis que je suis né depuis vingt cinq ans depuis trente ans c'est c'est la patrie qui fait pour moi moom ma yaar moom ma dalal moom ma def lépp donc dinaa ko delloo léegi yéen puisque nekk ngeen benn team commencé nekk ab kuréel goo xamante ni gu mag la nekk ay jeunes aussi pourquoi pas mënul leen woon dem euh, ca pencum ndaw réew ma créer seen liste dem assemblée nationale de ce fait problème yii yëpp ngeen di jooytu ngeen jooytu ko foofu mu nga xamante ni mbir mi dina gën a yaatu te autorité bi dinañ si mën a indi saafara c'est une c'est c'est c'est une idée et puis c'est très normal de se politiser c'est très normal en tant que jeune de se politiser mais fi mu fi mu toll nii à l'instant T li ñu gis doyuñu doyuñu dans la mesure où à l'Assemblée on a des majorités mécaniques ainsi de suite donc tey nga dem fa sans majorités aussi ça sera très très compliqué. mais du leen tere fa démarqué wu. di jooy da ngay jooy di jooy et puis on a remarqué aussi que avec l'État mais il des procédures extraordinaires tey par exemple pourquoi école yu bëri rénové wuñ leen boo demee ci directeur yi il se plaignent que. ils écrivent ils écrivent ils écrivent mais paperasse circuit bi bi muy aw yëpp pour après réponse ñëw ça sera dans quelques années et la situation sera pire que li ñu fa bàyyi woon donc quand tu vois yooyu noonu yëpp gis lenteur administrative yi gis la politique politicienne gis tellement de choses tu te dis que nañ ci nañ ci nekk ba ci kanam parce que tey quoi qu'on puisse dire ñiy jiite opposition pouvoir ku mu mënti doon ñi nekk ci kanam ñooñu gën a ñooñu dàq jàng voyagé nañ fépp ñooñu ëpp xam-xam donc ñun lu ñu xalaat rek ñoom xalaat nañ ko xam nañ ko xam nañ ne mën na nekk defuñu ko. ils ont d'autres priorités. léegi ban retour ngeen di am ci euh, ci ci population yi nga xamante ni ñoom ñooy bénéficier wu ci seen seen action que mu nekk côté école yi que mu nekk population yi yan retour ngeen di ngeen di am si ñoom. des des retours extraordinaires des retours qui font pleurer parfois. parfois nga dem ci benn milieu ci nga def benn action boo xam ne jàpp nga ni action bu ndaw la nga def fa teen par exemple mais magu dëkk bi toog retour boobu noonu ñaan yooyu noonu parfois on a les larmes aux yeux. parfois am nga ci anecdote bu leen marqué benn chantier. Euh, je vais prendre peut-être euh, Kër Madi Dramé benn daara bu ñu demoon foofu on l'a rénové ci week bi parce que. xale yi sax bu bu daan taw dañ naan obligé wut suufu garab walla dara on rénover bi ñu paree euh, sëriñ bi fa nekk daf ñoo xo daf ñu ne man mënuma leen fay li ngeen def man yàgg naa ko bëgg munuma leen fay amuma dara lu ma leen jox mais juste ñaanal leen rek laa mën c'est des moo très simples hmm. wax bu gàtt mais voilà tu sais que am na épine boo dindi pas ci tànku sax euh, le bu mais ci xale yi donc ça a été fort man personnellement cet épisode ça m'a beaucoup marqué ça m'a beaucoup marqué ça me je ah. Mhm. on sert quelque on léegi ñu ngi ci jamono nawet ñu gis ni nawet bu amee daanaka Ndakaaw day nekk ci ay mbënd yu métti te du Ndakaaw kese léegi yan action ngeen prévoir pour euh, jéem a xeex nawet bi. waaw nawetu daaw par exemple on avait on avait reçu par un de nos partenaires ay lot de matelas ak yooyu noonu parce que on a commencé je pense à Kër Massar y avait certaines zones yoo xam ne c'était inondé les gens étaient amuñ woon fu ñu tëdd et ñu ne nañ collecté vite fait ay matelas ay affaires yooyu et des denrées ñu jëm leen allégé tuuti c'est le peu qu'on puisse faire ou c'est le maximum qu'on puisse faire par rapport à ça, par rapport à la situation. C'est ce genre d'action-là. Parfois, de manière ponctuelle, ay Corité, ay Tabaski aussi, on essaie avec nos partenaire de, defar ay des pactes de jëm alimentaires. J'aime qu'on distribue ci famille famille yi nga xam ne seen doole demeewul noonu ñu jëm leen fexe aussi ñu bokk ci ci ci fête bi. canalisation aussi doo leen xool. bu ñu amee doole. <laughs> parce que dañuy gis yenn kàcce yenn jeunes dañuy jug sax. ibbi canal yi jéem a xool ndax am fattul. bu ko defee ndox ñëw mën a jàll et tout. Mm, voilà mais de nature de manière loolu on le fait en amont avec des programmes de set setal et de mm. tout donc en amont bien avant nawet bi. Mm-hmm. on essaie de fexe ba koñ bi du am point wu salte sax. Mm. point boo xam ne dañ fay tuur mbalit. on essaie toujours de faire ça. voilà donc euh, waxtu bi ñu joxoon euh, moom moo ñuy def xam naa ni vraiment le social moom c'est un domaine boo xam ne dafa large trop donc euh, li ci nekk yëpp ak li ngeen jot a réaliser yëpp malgré que am na yu yuñ ci jàllale sànq euh, mënuñ ko wax yëpp ah mais dañ lay bàyyi rek nga tàggato di jox la dig daje beneen jour invité waat la ñu gën a yaatal. incha allah dañ leen di remercier yéen ñëpp et puis di profiter de l'occasion pour euh, demander à tout un chacun fi mu nekk mu essayer de manière locale. à s'organiser à impacter sur, sur sa communauté, mm. si chacun fait ça de son côté, il y aura un de personne. L'union bonus lay doon. merci à vous merci beaucoup merci Assane si sa teewaay aussi di wax ni ce sont des jeunes yoo xamante ni seen dëkk rek moo leen tax a jóg donc c'est bien ñu jàppale leen ku leen mun jàppale jàppale leen. Mm-hmm. Euh, c'est ce que j'avais à lancer parce que souvent damay gis seen réalisation Twitter depuis quelque temps mhm. et c'est quelque chose boo xamante ni c'est à encourager mais bon quant à nous ñu ngi leen di jox rendez-vous suba mhm. ci seen beneen émission incha allah fii si suñu label parti bi waaw di remercier Assane ci teewaayam mais aussi di leen encourager ci li nga xamante ni moom la ñuy défendre parce que pour man euh, daa gënul rëy nit nga jóg ni da ngay euh, jàppale sa dëkk ci action yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy def kon ñu leen ci encouragé di leen ñaanal yàlla rek euh, gën leen may euh, ñuy wëyal li nga xamante ni liggéey bii la ñuy def kon mbokk ñoon jox dig daje ëllëg bu soobee suñu borom avec euh, comme d'habitude la même merci Aliou merci Bipa merci Assane Touré ci euh, participation bi disponibilité bi euh, di leen encourager aussi ah parce que li ngeen di def c'est pas évident comme ni nga ko waxee ku ci nekk euh, fi nga dëkkee rek boo jàppee mën nga jàpp ni lu tuuti la mais mën na servir ñu ñu bëri aussi médias internationaux yi gis naa ñu ngi commencé intéressé wu ak ci ci yéen peut-être chemin la pour quand même gën a woñ ñeneen ñi ñu gën cee jàpp voilà donc di remercier suñu téléspectateurs yi ànd ak ñun depuis 8 heures depuis ce matin ci suñu matin matinale j'espère que voilà le débat était intéressant et que information yi ñu leen jox yëpp euh, dina leen servir à quelque chose donc euh, dañ fi yem tey rek euh, jox leen rendez-vous demain incha allah toujours avec la même équipe yeneen invité yeneen thème d'ici là portez-vous très bien et passez une très bonne journée waaka bi ñu ngi ñëw restez connectés à 10 heures dinañ ñëw ak yéen waaka bi donc restez avec le programme de Sunu Label TV et à demain incha allah pour une nouvelle matinale